ñun ndaw leader yi nga xamante ne dañoo bokk ci askan wi dañoo fas yéene booloo doon benn ngir rek jàmm am ci espace politique bi. seen baat am solo lool ci jongante falum jiitum réew mi ndax bu ñu sukkandikoo ci ANSD téeméer yoo jël la ci askan wi juróom ñaar fukk ak juróom ya seen at matagul fanweeri at ak juróom. loolee tax ba ñu am solo lool ci jongante bi kandidaa bu nekk di xëccoo seeni baat. ngir yokk seen taxawaay ci jongante falum jiitum réew yi ñu jëm ci atum 2024 ñu jagleel leen ab lël. jotaay bi ñu ko tuddee conversation citoyenne suñu ndaw yi dañu léegi nekk nañu ay citoyen dëggantaan maanaam dañu bugg bokk dañu bugg a bokk dañu bugg seen kàddu ñëpp dégg ko seen kàddu ñëpp jëfe ko loolu la ndaw yu bugg moo tax euh, bés bi am solo. bi la lël kuréel bu ñuy woowee National Democratic Institute ci lëkkaloomam ak USAID ak collectif bu ëmb organisation yu société civile yi fas yéene waxtaan ak ndaw ñi ci défi yi nga xam ne ni moom moo leen di ci xaar. J'espère que nous pouvons renforcer la participation. yaakaar naa ni dinañ gën a dooleel taxawaayu ndaw ñi dinañ fi ba itam ñu gën a dugal seen loxo ci processus électoral bi.